اجمعين سلام ربنا جاي الحاج عبد العزيز نيلي دوكو داكتل نيو فوتو دوكو نيو اكي كو زيار دي زيار كي خامي نو بوكو درو نو وي كان والشيخ الخومي ويكان وحسبت ذلك شعبتي جابة ويكان وما مكيتو في أبي كل سيد محمد منصور برم دارا جات كل ما يقولون سيد محمد منصور مباح أجل بزيار بزيار مباح شخص رحمتي جابة إنه عن حاجة برزيز بزيار مباح سمدوم النيل Habib ibnu Seyd Abdul Aziz Seydi Mouhamadou Mansour maa ngi ziar bu baax ak am mbégte ak contentement ci guddi gii wallahi mënoon na nu yem rek ci Abdul Aziz Kébé wax lu tënk ko Seydi Mouhamadou Mansour wax magam xaritam soppeem mu ñaan ñun ñëpp ñu ngi tey nag déglu fi dara lu dul loolu daan dégg rek te maam sox si alxaj baay mooy lan mooy yàlla ne rasulullahi ne sallallahu alayhi wa sallam li ñu baax di ne di nuyu bu baax sama doom Sidi Ahmed ibnu Sidi Jalil famille Cheikh Seydi El Hadji Malick di fi nekk yëpp ak maam Ousmane ibnu Alhaji Habib ibnu Cheikh di nuyu bu baax sama doomu ndey mii toog di soxna ay de si bintu Alhaji Abdoulaye di ci teg rakam kan ci nu tuddee maamam ne sëbi bintu Alhaji Abdoulaye di nuyu bu baax Lalla Ñang bu Basiru Ñang bu Soxna Faat Si mu kan mu sunu maam Cheikh Seydi Hadji Malick di nuyu doom mu Alxaaji Abdoulaye ki xam ni léppam gannaaw yàlla ak yonent bi ak ndeyam ak baayam du kenn ku nu Alxaaji Abdoul Aziz di sama jabaar bee toog ñu ajalatu bee rawat Seydi Mouhamadou Mansour lii day sa maama ngi ci monsieur sa maam Cheikh Hadji lii day sa baay ngi ci yaa Hadji Abdoul Aziz waaye lii nag yow ci sa bopp wallahi yaa ngi ci loo ci nekk tey amul kenn ku bokk ci konu Cheikh Seydi Hadji Malick ku xam ne teewoo amul kenn ku bokk ci kër Xaadimu Rasuul te teewoo ko ak turu bi yëpp loolu nag yaa ko leble sa baay sunu sëriñ bibliothèque bu mag ba moo ku ci taalal sa loxo day joor ni faalewu ma kenn taalal sa loxo càmmoñ ni kenn faalewu ba seen Mouhamadou Mansour lii nga am yaa ko may nag ak sa ak sa teggi ak roy sa baay ak ak Abdoulaye si ci lépp di nuyu kii nga xam ne moom

surtout ci maam Cheikh Seydi El te nekk ci dëkk te mën ko te ñëwoon teew sa kanam loolu nag yaa ko may sa bopp man nag mag laa tànk yi baaxatul mënatuma ñëw mais dama lay def si la place àlla bi turandoo Abdou Aziz Kébé mii moo ni nit kenn du ko xeebal sëriñam kenn du ko xeebal soxlaam kenn du ko xeebal bésam bërki démb sa mag ju baax def muy ñaan ñun ñëpp moo nekk ci xolu ñëpp ku la wax bi tey xol lu ci leen mooy jumaa ji ca Tiwaawan te sunu maam Cheikh Seydi El Hadji Malick def na ko sunu borom tabaraka wa taala mu yegg te suy ñu bëgg a teg Ibnu Alaaji Mansuur moom ci boppam jiite ak rakkam yi ñu dem ñu ne koy jóg ñëpp lu ngeen wax lu ngeen wax mooy moo nekk ci xolu dul yëpp waaye si loolu sa maam Cheikh Seydi El Hadji Malick bind ma bu baax ne gis na sama baay ca barsax ñu ko amal may Maodo bu la may lii mun ko dara mayu ma ko de dugul sama tur bi dañ doon dàkkal ci El Hadji Malick rek moom bay ma kooku mooy sa maam Cheikh Seydi El Hadji Malick sa baay dafa ne doo jëmbat doo Baye Mansour Lo Cheikh Ndiaye maa ngi su lay doxaare dama bëgg bu ñu julee fajar ngeen ñëw dama leen soxla ñoom ñëpp ñu julli fajar ñëw ci sa ëttu baay mu taal leen oto bi mu taal oto bi mu jógee jël tàpp lu mu def roomu mbokk roomu ci dem dem Dakar Plateau dellu si waat jël tàpp jàkk yëpp la si àq bi la mu ni kii kan la kenn rek la muy sa maam Cheikh Seydi Hadji Malick sa maam li mu def ci réew mi Pape Tanka da ko foog sa xamante ni dina teewoon ak Rasulullahi ak Cheikh Seydi Ahmed Tidiane liggéeyal yàlla ba ñëpp xam ni kii kat suñu borom tabaraka wa taala xam na ni kii bi mu ko liggéeyee waxoon naa ko ca dal ñu si di Boubacar Ibn Laye Mansour kenn du sa maam Cheikh Seydi Hadji Malick

man nag si wallaahi loo xew la war naa ci ndax bu la siy Babacar ibnu Alaaji Mansuur sama doomu turandoo ñu la demal ci biir soxna du bay Maodo ba doo xam ndax wér nga wala wéroo da ngay ñëw rek sama du baax kii sa xarit bii sa soppe bii ki ñu tuddee xalifa bu tedd ba Sidi Boubacar nga xam ne tool yi ci xilaafa bi ba ba 1957 di Seydou Boubacar ñëw moom ci boppam jiite kaamil bi te nag man lépp lu ma am gannaaw yàlla ak yonent ko ak ma ko lu Amadou Mbaye Maodo Amadou am kenn mayu ko ko ku ñu seet Alaaji Mbaye kon nag si waxtaan du ma guddal aji neera yàlla yàlla may gudd fa yàlla may la wér sa doomu baay yooyu nga toogal ñoom ñëpp ñu nu jeexee ci seen baay alxaaji abdul aziz waat naa ni noonu ngay jeex sa baay alxaaji abdul aziz ëpp la wala ci dara di ñaanal suñu Boubacar ibnu alay ko sama doomu turandoo ko yàlla may wér ñu leen ami leen ñëpp yàlla ko yàlla may gudd fan ñu leen ami leen ñëpp yàlla noonu gudd fan lool yàlla may ko wér seen Mouhamadou Mansour Haji Makhtar waat naa ni panel bii ma ne su may gàmmoo ci dara wut panel bu mel nii lii ma fi dégg boo dee patriote di Sénégal wala nga nekk africain dégg Abdoul Aziz Kébé ni mu wax wallahi dañ dugg sa xol xalifa ba nag dañu daan ñaan moom lañ laay teerale ñu tur bàyyi daan ñaan ñaan yàlla tàpp ko ñëpp ci dañu sax réew mi nag réewu jàmm kon ñun ñëpp li ñuy ñaan mooy yàlla fi yàlla def jàmm ci dara yee sang ba dund ci biir bu mën a wax ci xam ni moom rek moo am jàmm mooy yàlla yàlla fi yàlla def Sénégal Seydi Habib fii laa yem allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala nabi wa alayhim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 عجمعینا سلام ربنا جائی